bismillahi arrahmani arrahim awnaka ya muinu wa bika nastain wa nusalli wa nusallimu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa asna xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima laqin lisaani waxlulan minhu luqat wa jaalhu daakiran wa shaakiran abad bokki julit yi yu teew ci jataay bi ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci réseaux sociaux yi waaye dañu topp itam ci télévision yi ñu ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd bu barkeel wi nga xam ne ci la ñu nekk waaye rawatina nag bis bu màgg bi nga xam ne moom lañu ñu dëgmal di benn bis ci weer wi boo xam ne bu am taarix la bu am histoire la bari lool yu ci xewoon waaye mu bokkoon ci yenn ci yi nga xam ne xew na ci di feeñu kenn ci njabootu cheikhul xadim maolaana cheikh mohamadin al fadil ibnu xadim rasul ñu war di ko fàttaliku nag di ko di jàngat am ay jaar-jaaram rawatina taarixam waaye di jàngaat itam bu baax jëf yu tedd yu barkeel yi nga xam ne jëf na ko bàyyi ko fi mu doon yoo xam ne yu am solo la ci taxawaayu kuréel gi nga xam ne moom la sëriñ bi dénk mbooleem lu jëm ci fànni xam-xam ci doxeenu liggéey bi waaye di njëkke di ziyaare tam bu baax a baax Cheikh Ahmadul Muntaxa ibnu Cheikh Ahmad al Bachir di ñaan suñu borom guddal aw fanam lool te wéral ko loolu itam la ñuy ñaanal mbooleem njabootuk cheikhul xadim gi yépp waaye ci kër Cheikh dal Fadal ki nga xam ne moo nekk ca buntu ba di sëriñ Abo Baraka ñoo ngi koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam te wéral ko bàyyi ko ci kanamu njaboot gi ak ay rakkam ak taalibe yi ñëpp rek ba taxawaay yu am solo yi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci jotaay yu mel nii ñu yàgg ko taxawee ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yàgg nañ koy taxawee di feeñal lépp luy xam-xam ci liggéeyu jàmbaari lislaam Cheikh Ahmad al Fadal ñu dénk ko kuréel bu am solo bi di al lajnatul ilmiya wa saxaafiya ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jëfal ci taxawaay yu am solo yi waaye ci wane gi nga xam ne ñu ngi koy wane Cheikh Ahmad al Fadal ci anam goo xamante ni gu dëppoo ak xam-xam la te xam-xam nangu ko lool ndax xam-xam dafa am solo lool rawatina ci ku mel ni Cheikh Fadal nga xam ne léppam xam-xam la ci kaw jëf yu am solo yooyu nga xam ne Sëñ Fallou bàyyi na ko fi muy empreinte bu am solo ci taarixu islaam rawatina ci yoonu murit bokk ci sha'air yi nga xam ne yu gën a ràññeeku ci yoon wi ci la bokk wala mu bokk sax ci njëkk te saa su nekk rek muy wane kiimtaan ci taxawaay yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Fadal taxawe woon na ko ci te mooy waxtaanewaat barab bu tedd bii nga xam ne moo nekk ci suñu wet di al masjidul kabir li Touba al di jumaa yi tuuba waaye waxtaane ko nag ci ayuk Cheikh Ahmadou waaye waxtaane itam jëmmi jumaa ji ci ab taxawaayam ak mboolem maraaxil yi nga xam ne jaar na ci rawatina nag Cheikh Amadou Fadal nga xam ne ab taxawaayam ràññeeku na ci lool loolu lañu fa yéenee jéem a nafaraat ci ay bind yu gàtt rek di am nag mbégte mu rëy rey dalal fi ay boromi xam-xam waaye doon itam waa dëkk bi doon ñu ñu ràññee lool ci seeni taxawaay yu am solo ki nekk ci sama wàllum ndeyjoor di sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno ñu xam ko bu baax a baax ci taxawaay yu am solo yi nga xam ne mu ngi koy def ci dëkk bi rawatina ci daayira bu mag bii di muxaddamatul xidma mu mel ni kii waxtaan wi ñu ko bëgg a waxtaan loo lu mu man la ndax koo xam ne mën naa ne lu jege ñaar fukki yaa ngi koy liggéey ci jumaa ji lu mu gàtt gàtt am na loo ci xam rawatina nag nga def ci ay yitte ba géeju ci yaakaar naa bu ñu ko joxee waxtaan ngir mu waxtaan ci jumaa ji doon na loo xamante ni lu muy man la incha allahu bi tawfiqihi waaye ci suñu wàllu càmmooñ itam ñu am ci sëriñ Xalil Mbàkke doj tur wi yaakaar naa ku ko dégg wala dàkkantal wi sa xel dana dem ci taxawaayu wayjur yu tedd ya ci bi ñuy taxawal jumaa ji ca xeer ya waaye ak ci liggéey yu am solo yi nga xam ne Cheikh Ahmadou Fadal def na ko ci kooku itam doon ndaw waaye doon itam jàmbaar lool ci ab gëstu nga xam ne jundam gi yépp daf ko jeexal ci gëstu rawatina gëstu yoon wi danañ ko jox insha allahu taala ginnaaw bu nuyoo mu ñëwal ñu ci jëmmi tax tabax bii nga xam ne moom la sëriñ bi mag bi radiallahu anhu wax ne di ñaan suñu borom mu jéggal ñi nga xam ne ñoo ko taxawal wala ñi nga xam ne ñoo yëkkati tabaxam bu mag bi te loola ba mu koy wax booba barab bi dara taxawagu fi woon kon mu mel ni ki sëriñ bi yàgg naa xam ne barab bi dana taxaw waaye jékki-jékki rek taxaw am na fu mu jaar am na fu mu jógee ba tey mu egsi fi mu yegsi danañu ñëwal ci jëmmi barab bi kon ci ngir bañ a guddal dañuy jox sëriñ Xalil Mbàkke doj mu ubbil ñu ci barab bi ak taxawaay yi ak maraaxil yi étape yi nga xam ne jaar na fa ba toll tey jii fii nga xam ne fi la toll incha allah bisimilah sëriñ Xalil alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen siyaare bu baax a baax leen ndokkeel tam ci weeru tedd wi nga xam ne ci lañu ñu nekk muy weeru rajab di leen ndokkeel itam ci bis bu màgg bi nga xam ne moom la ñuy séenu di jiital ci nuyoo bi kilifa yi fi teew yëpp waaye di siyaar ak a ñaanal Maulana Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ñaan sunu borom mu yàggal ko ci sunu kanam lool te mu ànd ko wér di ñaanal itam sëriñ abul baraka mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Mahamadul Fadal ñu ko ñaan suñu borom may ko fan wu gudd lool bu ànd ak wér ak mbooleem njabootu Cheikh Mahamadul Fadal gépp euh, di leen nuyu bu baax ni nga ko waxee rek ñu ngi ci weeru tedd waaye ñu ngi séentu itam guddi gu màgg gu tedd tey jii di bis bi nga xam ne moom lañuy ubbi waajtaay yu jëm ci bis booba wala moom la ubbi lépp lu jëm ca màggal guddi ku tëdd googee wala bis bu màgg boobee nu tere leenu boole ñu ci ñi nga xam ne ñoo koy taxawee ñu ciy sant yàlla bu baax ci teewaay bi ni nga ko waxee ñu war a waxtaane ci dundu Cheikh Mouhamadul Fadal ku nekk xam na ne ak dundam euh, géej la waaye ñi nga xam ne ñoo koy taxawee at mu jot ñu seet dara ci ab dundam loo xam ne danañ ko mën a nafar man koo fàttalante ngir dolli koo ko ca moom waaye dolli koo ko noonu itam ñu ñi nga xam ne roy ko rek moo nu war nu sàkk liggéey bu mag bi nga xam ne taxawee na ko ci jumaa ji muy waxtaan wi ku nekk xam na ne jëmmi jumaa ji boppam moom naka jekk daa am wàccuwaay ak dayo ci lislaam ndax wa annal masaajida lillaahi loolu rek jox na ko dayo bu rëy rëy kon jumaa jum mën a doon ak fuñ ko mën a tabax rek am na wàccuwaay bu rëy ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam digge ci ay ngëneel yu yaatoo yaatu ci ku tabax juma waaye bu ñu tuddee jumaa ji nga xam ne mooy jumaay Tuuba moo am ay jagle boppam ginnaaw bi mu doonee bi mu amee jagle yi jumaa yëpp am ba noppi mu amaat yeneen jagle yu boppam yoo xam ne da koo jagoo loolu nag dana am solo lool ci buñ ne Cheikh Mouhamadul Fadal moo tabax jumaa ji ñu xam jan jumaa la tabax waaye du jumaa rek joo xam ne euh, des koo tabax noonu bu doon jooy itam mu baax ndax jumaa yëpp ni ma ko waxee am na wàccuwaay waaye jumaa ji am na ay jagle yoo xam ne moo ko tax ami ngëneel yoo xam ne fekku ci yeneen jumaa yu bare bare bari te loolu day tax ñu xamaat wàccuwaayu jumaa ji ak gëddaam ak dayoom bañ koo jàppe rek jumaa ji ñuy romb ndax lu ëpp ci nun wala ñi mel ni man mën nañuy euh, li seen gis-gis fu muy jëm mooy rafetaayu jumaa ji akub taaram akub rëyaayam ba mën na leen yóbbu sax ci di ko ëppalanteeg yeneen moo dàq nangam ak moo gën a rëy jàppee loola di lu yéeme ndax rafetaay bi yéeme na waaye am na leen lu ci gën a yéeme muy lim doon dëgg dëgg dëgg te loolu bokk na ca li tax mu am wàcc waaye dëgg mooy jëmmi jumaa ji ndigalul sunu borom la mooy Cheikh Mouhamadul Fadal moo wax ne sëriñ bi ci boppam moo wax ne moom du ci dara ndigalul yàlla la ak ndigalul yonte bi sallallahu alayhi wa sallam def naa bu ñu doon xool ci kaw suuf nag jumaa joo xam ne sunu borom moo digle ñu tabax ko defe naa kaabatullaahi lañ ci jàpp ne mooy li nga xam ne suñu borom moo ko digle waaye bu dul moom doo gisaat jumaa joo xam ne sunu borom ci boppam moo digle ñu tabax jumaa jooju loolu jox na ko waay bu rëy rëy boo xam ne tax na du jumaa dong waaye jumaa joo xam ne yàlla ne nañ ko tabax sëriñ bi wax ne sunu borom jox na ma ko jox koo xam ne teg naa ci sama bët ba àgg sax di wax ne képp koo xam ne yaa ngi sikk sàkk ci amuk jumaa ji ngir jafeek jamono walla jafeek jumtukaay yi ko war a liggéey yaa ngi mel ne kuy sikk sàkk ci yàlla xam nga loo xam ne yegg na ci sikk sàkk ci ku koy def yaa ngi mel ne kuy sikk sàkk ci jëmm yàlla ji ak loolu ni mu réy ci jullit loola loola daye boobu la am la wax sax ne dara mënu koo te sotti daal di tëjë wax jane li yahlika man halaka xam bayi na wa yahya man hayya xam bayi na boo demee ci mañ maxatu soxraa ma nga ci waaye ne suñ borom jox na ko ba mu jàkkaarloog moom te dara mënu koo sotti la ca des daal mooy ku ca feeñ feeñ ba faw ku ginnaaw des ginnaaw ba faw kon digle gi ko sunu borom digle ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu jox na ko wàccuwaay bu rëy waaye bi ko sëriñ bi njëkkee digle ci njaareem itam waxoon na ne faggul naa leen ci seen texe ak àddina ak alaaxira xam nga jumaa joo xam ne jëmmi tabax gi faggul nañ ña koy def texe ak àddina ak alaaxira loola wàccuwaay bu rëy la bokk na ci li ko joxaat dayo itam bi ko sëriñ bi santaanee ci njaareem digle woon na ne képp ku ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett muy sax njot ci sawara jumaa ji ñu tabax joo xam ne boo ci joxee sa alal mu doon sax njot ci sawara loola itam ku rekk xam na ne du jumaa dong kon loolu jox na ko ab dayo bu rëy rëy boo xam ne wuute na ko euh, jumaa yu bari waaye bokk na ci li jox ab dayo itam jumaa joo xam ne sëriñ bi wax na ne jëmmi malaayka yi ci boppam sàkku nañ ko koo defal ginaaw bi nga xamee ne sunu borom jox na ko mooy bi ko suñu borom joxee jumaa ji ñi xam wàccuwaay bi jumaa ji am ak li ci nekk ci aw yiw jëmmi malaayka yi ci boppam ñoo sàkku ci moom ngir bëgg ko defal waaye jinne yi itam sàkku ci moom mu bëgg ko defal kon yooyu soo ko boolee da ngay gis ne jëmmi jumaa ji am na wàccuwaayu boppam boo xam ne warees na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax jumaa ji sunu borom digle ñu tabax ko loolu wàccuwaay bu rëy rëy la nga xam ne sëriñ bi wax na ko ci yëpp itam wane ne ku ci sikki sàkk yaa ngi sikki sàkk ci yàlla wane ne itam tabax gi warul naa leen seen tex ak àddina ak alaaxira wane ne itam ku ci joxe ñaar fukk ak juróom-ñett muy sax njot ci sawara wane ne itam jinne yeeg malaaka yi yëpp ñëw nañ ci moom di ko sàkk ngir bëgg ko tabaxal loolu dañuy jox kon wàccuwaayu jumaa ji nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Fadal doon tabax jan jumaa la dana taxa itam bu baax a baax ñu gën a xam niñ koy war maale ak niñ koy jàppe ak niñ ak fiñ ko war a teg Cheikh Mahamadul Fadal nag am ci ay jagle yoo xam ne jagley boppam la jagley boppam yooyee mënees na cee lim li ñuy wax al xaas ginnaaw bi nga xamee ne la ci njëkk sax mooy fekkee jataay ba sëñ bi njëkk a tuddee jumaa ji mooy jataay ba sëñ bi njëkk a tuddee jumaa ji di ko digle yàlla doxal mu bokk ci ña ko fekkee loolu ak jagle la waaye itam bokk ci ñi nga xam ne wala bokk doon ki nga xam ne sëriñ bi jagleel na ko ndigalul boppam ndigal loo xam ne da ko woolo ba mu ñëw mu digal ko wane ko ne ko yaa ma daan laaj ndigal ak bëgg maa liggéeyal ndigal ngoog loo xam ne doonu ma ci dara yàlla ko bi yonentam ñoo ko santaane waaye la la cay digal mooy ku dikk na la ca fekk ku dem na la ca bàyyi kon moom am na ci jaglek boppam koo xam ne sëriñ bee ko ko beral muy li ñuy wax al isnul xaas ginnaaw bi amee isnul am amee ba noppi muy jaglek boppam koo xam ne ci ay jagleel la bokk mu amaat ci jaglek itam mooy ki nga xam ne moo njëkk a feeñal doj yi ñu liggéey jumaa ji mooy ki nga xam ne itam moo njëkk a liggéey ci doj yi moo ko am njabootam mooy ki nga xam ne itam moo njëkk jël ci doj yi ñi liggéey jumaa ji wan ko sëriñ bi wan ko sëriñ wan ko sëriñ bi ci njaareem yooyu di ay jagley boppam yoo xam ne euh, am na ko ci gannaaw ba mu waxee ne mooy ki ci xeeru njëkk yu moom la xeeru mujj yu moom la kon ni mu amee jagle ci njëkk a wane doj yi njëkk caa dem di ca liggéey moo ko njabootam njëkk koo jël wan ko sëriñ bi ci boppam noonu la amee jagle itam sunu borom dogal mu mottali ko ci loxol boppam xeeru mujj wi di moom mu mottali ko jiital ko boppam itam kon yooyu ay jagle la yoo xam ne am na ko jumaa ji loolu nag taxoon na mu joxoon yitte lool liggéeyu jumaa ji ku nekk xam na ne amutoon ñaari yitte wala ñaari soxla jenn yitte rek la amoon muy liggéey jumaa ji moo tax la jiitu muy doon sëriñ bi wala boog la jiitu muy wut Cheikh Mouhamadul Moustapha naka jëkk dafa defoon yitteem yëpp ci liggéeyal jumaa ji nga xam ne bokk na ci ñi nekkoon ca ndox di liggéey ci xeer yi moo ko njabootam waaye lépp loo xam ne mas na koo bay mu yët ko Cheikh Mouhamadou Moussa mu def ko jumaa ji ba ci jëwriñ yi xam ne moom la ko sëriñ bi boole loon ñi ber seen daara bopp luñ mas a bay day wax nañ ko indi ñu jox ko Cheikh Mouhamadou Moussa mu def ko jumaa ji diirub li fi Cheikh Moussa di nekk noonu la àndeek moom ci di liggéey waaye ti jël alalam ak alali ay taalibe yi nga xam ne ñaan ak moom ko jox Cheikh Mamadou Moustapha mu di ko def ci liggéeyu jumaa ji mustu soxla leneen maa mustee soxla fu ñu koy féetale foo xam ne ab cër lay doon boo xam ne da koy féetewoo moom li muy téewoo woon mooy dem di liggéey di indi jumaa ji ak di jël alalam di joxe jumaa ji yitte jooju nag moo dem ba ci bi nga xamee ne dem na ba war koo yeggale ci ginnaaw Cheikh Mahamadul Moustapha mu gën a yokk yitte joojee woo ci taalibe yëpp ci ndigalul sëriñ bi ñu jéem koo mottali yitteloon na ko ba yeggoon na ci àgg ci nanguwut wut ku wuute maa nangu wut koo xam ne dangay tànnal sa bopp ci bañ a ñëw wala ñàkk ñëw àggoon na àggoon na àggoon na ko foofu yittee boppam ak mbiri boppam mosu koo tax maanaam mosu koo am soxla ci nit wala mu koy wér ci nit waaye bi nga xamee ne jëm na ci yittee jumaa ji bi mu wootee woo taalibe yeeg seex seeg yëpp ak dogoom yeggoon na ci ne kenn du des ginnaaw àggoon na ci ne képp ku bëgg a des ginnaaw maanaam faaw nga ñëw ndax li nga yor suñ Tuubaa la ko jox nga xam ne yeggoon yeggoon na ko foofu waaye ne ñëpp ay ñëw ci liggéey jumaa ji képp koo xam ne suñ Tuubaa nga yaakaar la nga yaakaar suñ la nga jox la ko faaw di nga ñëw ci liggéey jumaa ji dogu gu toll noonu la ci amoon tàmbali sanc ay dëkk yoo xam ne la ko tax a jóg lépp mooy liggéey def ko ci jumaa ji ba mu koy sanc dafa wax ne mboolem dëkk yi muy sanc nga xam ne jumaa jee ko tax a jug muy dëkkam yëpp lañ fay bay ñu koy def ci jumaa ji dafa wax ne lu fa nar a jógee te jëmut ci jumaa ji yàlla mel ne xorom te ku nekk xam na ne loolu misère la waat la waaye kenn mësu gis mu bay loo xam ne lu mel ne xorom la loolu itam la santaane woon ñu sos ay tooli ba ci dëkk yi yoo xam ne jumaa jee ko tax a jóg naka noonu mboolem seex si fi nekkoon yëpp itam ñu sas leen ay sas yoo xam ne at mu jot ku nekk danga nga indi téeméeri junni yoo xam ne liggéey jumaa jee ko tax a jóg loolu ci ak dogoom ak uh, yitte ji mu amoon ci jumaa ji ak pas-pas loolu la loolu la tàmbalee woon jiital ci boppam ak alalam ak léppam ak waakaram ak njabootam ak ay taalibeem waaye képp ku yaakaar suñu Tuubaa itam mu woo ci liggéey bi boole ko uh, soññ la ci tobbil leen ay sas yoo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy togg jublu nag ci liggéey bi dëgg dëgg dëgg te mooy fexe rek li nga xam ne moom la fi Cheikh Moustapha bàyyi woon mu fa yéene ko yeggale ba mel ni ko sëriñ bi bëggee euh, wut ay sàkk ay jëwriñ yoo xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bu mel noonu te mooy ñoo xam ne ñoo ngay féete ci liggéey bi ci saytu gi ak sàmm gi noonu lañ organisé woon liggéey jumaa ji jumaa ji murid yëpp a ko bokkoon di liggéey cheikh sépp itam ñoo ci àndoon ak cheikh Mouhamadul Fadal ne ci ginnaawam ak njabootu sëñ bi di ko liggéey cheikh Mouhamadul Fadal bi mu yegsee dafa wut ay jëwriñ yoo xam ne euh, ñoo koy féete ci liggéey bi ni nga xam ne noonu la ko cheikh Moustapha defoon ci sëñ Massamba moo tax bi ñuy liggéey jumaa ji dafa jëloon ku ñuy wax Sëriñ Mor Mbakke defoon ko muy koo xam ne mooy kuutaayam ci liggéey bi maanaam mooy jëwrinam jëwrinam ji nga xam ne mooy mooy mooy yor mooy jëwrinam ji xam ne daal moo ko toogal ci liggéey bi ci gàttal ndax bi muy wut ku ko toogal ci liggéey bi da koo wax kilifa muy kilifa koo xam ne ñoo bokk lépp muy Sëñ Aafe Ñaŋ Sëñ Aafe Ñaŋ xamal ko ne ko Euh, suñ Mor Mbacke mii nga xam ne moo moo nekk ak yow de li ngay sàkku mën na ko te mooy toogal la ci liggéey bi di ko defee na ko bëgg Cheikh Mahamadul Fadal bind ko lettre boo xam ne ca gàttal rek dane ko dama bëgg nga ñëw taxaw si liggéey bi ndax liggéey bi kat la ma ca sëriñ bi waxoon wax naa la ko ku dikk na la dem na la ca bàyyi daan na ko nag dafa mel ne cin loo xam ne def nañ ci li ci war a nekk lépp ba teg ko ci taal bi la la ca des mooy toog toog nangoo xam rek mu daal di ñëw nekk ca bi mu ñëwee jiitu liggéey bi ñu sàkk yeneen i jëwriñ Baye Thierno ma nga ci woon Serigne Xaafee Ñang mi ngi ci woon Serigne Njóogu Mbàkke mi ngi ci woon Serigne Abdourahmane Mbar mi ngi ci woon booba ni nga xam ne noon lañ koy tëralee Serigne Mortala ak uh, lenn ci ak Baye Fall yi ak Serigne Jaxat Jaxate ak ñu mel ne ñoom ñoo féete woon ci carrière ba ñu sàkk daaree jumaa ji ci xalaatu Cheikh Mouhamadul Mamoun suñ Mourou Mamoun dafa waxoon ne dañoo war a ginnaaw tubaab bi mëntu ñàkk jël ay minebar yoo xam ne ñooy liggéey jumaa ji te booba tubaab bi indi na fi ay kat yoo xam ne Dakar lañ jële ci seen xam-xam la màcc waaye ñu ne dañuy sàkk ay ndaw yoo xam ne lay doon seen liggéey mooy ñoom ñooy féetewoo lu jëm ci mine bari ci yi nga xam ne dañ koy soxla di ko wuti feneen looloo taxoon nag ñu sàkk xalaat boobu ne mboolem cheikh yëpp cheikh bu ci nekk da ngay indi ci sàkk say donga ñoo xam ne danañ féetewoo ci ci jumaa ji nga xam ne ñoom seen liggéey doontu dara lu nekk jumaa ji ku ci nekk indi la nga man ñi indi fukk ñi ñett ñi bañ mboolem cheikh yi nekkoon ñëpp ku ci nekk indi ay dong yoo xam ne nga koy indi cheikh Mahamadul Fadal ngir mu féetewoo jumaa ji loolu lañ tuddi woon daaree jumaa ji daaree jumaa ji yooyu nag cheikh Mahamadul Fadal moo leen yoraloon seen lépp ñu sàkk ñu sàkk leen nag ci biir liggéey bi ñoo xam ne dañ leen di féetale ci wàllu tabax ak ñoo xam ne dañ leen di féetale ci wàllu ferrailleur ak ñoo xam ne dañ féetale ci wàllu coffre ba ci ñi nga xam ne ñooy raxas xeer yi ba ci ñi koy toj ndax booba xeer yi suy jóge ndokku xeer yu mag lay doon yoo xam ne buñ ko indee ba fii dañ koy toj ba mu sew ñi lay ko ba mu set raxas ko ba mu set doo ko dugal ci ciment bi nga xam ne loolu day waree nañu fonk woon liggéey bi ak liggéey bi wér gi mu am ak nañ ko liggéeyee ci qualité bu dëgër dëgër noonu lañ doon liggéey liggéey ku mësaan a indi ay xeer booba ñu ngi koy jàll fi nga xam ne foofu la suñu moor daan nekk fa la ñuy def xeer yi ñi daan indi xeer yi di ko jëlee ndokk am na ci ñoo xam ne dañ daan fayeeku am na ci ñoo xam dañ daan liggéeyu sëriñ bi waaye téewut am na ñoo xam dañ daan liggéey fayeeku sëñ bi sëñ bi di leen fay waaye lu jëm ci tojum xayre dañ ko daan santaane dëkk yi nga xam ne ñoo wër Touba dañ ko daan ay ayloo ñëw di ñëw di toj si bu ko defee dëkk bu nekk dañ daan jal sàngam waa dëkk sàngam a ko toj waa dëkk bi itam képp ku fa jaar ñëw barkeelu toj bu dee daara jumaa ñi séddale ko ci suñ xaw su jaxate moo jiitoon li ñuy wax gamaat bi ñuy tooyale moom moo ko jiitoon Euh, ku ñu wax suñ mat euh, suñ euh, Baye Serigne Ndaw moo jiitu woon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ferrailleur bi boobu Serigne Abdourahmane Mbar moo jiitu woon ci ñi nga xam ne ñooy nekk ca kambi sura yi te kambi tàmbale woon sura mi ngi tàmbale woon fii ci Aïn Rahmati ci ginnaaw ko Serigne Mourtada ginnaaw bi lañ ko yóbbu bi lañ ko yóbbu gaaru mag ba nañ ko lépp ay kambi la xam ne liggéey nañ ko ci biir jumaa yi Serigne Abdou Mbar moo daan jiite liggéey bu tal noonu ak ñi ñi nga xam ne ñoo daan liggéey toj xeer yi Baye Cheikh Saw ak euh, sëñ Aliou Diouf ak sëñ a Faye ak sëñ Ibrahima Diouf mooy ñi nga xam ne ñoom ñu daan toj xeer yi jiitu woon ñi nga xam ne ñoo koy raxas ñi nga xam ne ñoo nekkoon daara jumaa yi nga xam ne matoon nañ xam ne ku ci xam ba yeggoon nañ sax ne ñooy féete bi ku mel xam ne moom lañ dénkoon magasin jumaa ji bi nga xam ne mooy def ciment bi te booba ginnaaw bi nga xamee ne Cheikh Mahamadou Fadal indi na raay bi ba mu gën a jege si jumaa ji yegg si fii ci gaar bu ndaw bu ñu masaane indi ciment bi ci wago buñ ko indee buñ ko yëgalee sëñ Mor bi nga xam ne moom la ko ci turam lañ daan jënd ciment bi buñ ko ko yëgalee mu yéene wax Baye Thierno Fall ñu yéene liggéey bi ñu dem jëli ko booba ciment bi ku ñuy wax Baye Serigne Diop moom lañ koy dénk moo ko yor li nga xam ne moo aju woon ci xaalisu jumaa jeeg koppar for yeeg li nga xam ne moo jëm jumaa ji ñu dénk ko euh, Euh, sëñ bi sàll ak sëñ sëñ sëñ sëñ Mourou ngoom ñoom ñaar ñoo ko fee ñoo ko féetoo sëñ Bay Sàll Baye Mbay Sàll mi jig naa ko Cheikh Mamadou Fadal moom lañ dénkoon mu féetoo mu féetoo moom la Cheikh Mamadou Fadal dénkoon loolu sëriñ bi ci boppam itam daana def euh, bu ngoon jotee mu ñëw wër liggéey bi di ko nemmeeku di xool liggéey bi fi mu toll ak xeer yi daana def itam ginnaaw marax gu jot lu ci ëpp muy wër liggéey bi di ko di ko nemmeeku am na bi sax dafa am day wër liggéey bi am mbooloo mu mu àndal moo xam ne su masaan di jug di seet liggéey bi dañuy ànd ak moom euh, bi muy war liggéey bi ba toll barab sàngam ca ñam àndaloon am ci koo xam ne daa amoon sikk sàkk ci liggéey bi ak jàpp ne ndax sëñ bi dana ko mën a yeggaleem du ko mën a yeggale bi Cheikh Mouhamadou Fadel li wër liggéey ba mu yàgg mu daal ne ana diw mu ne ko maa ngi nii mu ne ko liggéey bi ngay gis de danaa ko liggéey ba mu ne coleet jiite ko lu yàgg yàgg yàgg doog fee jóge kooku kooku daan ne ko mbàkke day loolu yéene lañ ne ko mu ne ko ba tey kon daana nemmeeku liggéey boppam ci di seet si liggéey bi di ko wër guddi ak di ko wër bëccëg di ko seet fu mu toll eh, fonkum ko fonk ko itam taxoon na du caageen rek lu waaye neex def ci am na kilifa koo xam ne dafa ñëw di toj ci xeer yi di liggéey am ku dem wax ko Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Mahamadul Fadal woolu ko ne ko diw damaa dégg ne yaa nga ci liggéey ba te liggéey mu ne ndax damaa defe ne day képp koo xam ne taal nga ab taal ba teg ci sa cin ku la taxanil matt mu neex a xam xambe xam naa doo ko war a bañ mu ne ko waaw loolu de baax na waaye bokkuñu de ko waaye loolu bokkut ak liggéey ndax dégg ndax yaa nga fee liggéey te ñëw wax ma ko ñëw wax ko suñ mor moo fa teg liggéey bi doxewut noonu daande ko liggéey jumaa ji ak la ñuy def ci jumaa ji bu noppee ñooyam lu ci antum ndigal du baax daanaka ndigal rek mooy tax lañ cee def baax nga gis ne kon day saytu di sàmm la nga xam ne moom lañ fay géyee suñu borom sax def ca kiimaan am naar bu dëkk Mbàkke boo xam ne ni nga xam ne Cheikh Mamadou Fadal noonu la nekkoon xet li waa kanam ñëpp naar bu ñëw ci moom ne ko yow de yaay xet li ab julit ak kudul ab julit yaay xet ñëpp dama am aajo nag bëggoon nga xet ma ci Cheikh Mamadou Fadal ne ko lan la mu ne ko damay tabax ab cinéma ca Mbàkke bëgg nga may may xeer mu ne ko xeer yi nag loolu tax koo jug loolu tax koo jóg dees na la ko may waaye bul bul dellusi daan ko demal ca jal yi ñu toj ba noppi nga seeti jal ba la soob nga tonni ko yóbbu te bul dellusiwaat naar ba dem wut ab camion ànd ak ña koy jàppale mu ñëw di xool jalee ba seet jal ba nga xam ne antu ndigal mu tonni ko ba lay ko yóbbaale nga xam ne benn xeer dugg ci jumaa ji kon daan saytu li nga xam ne mooy dem ci jumaa ji ba nga xam ne dara du ci dugg loo xam ne euh, dëppoo wut ak ni nga xam ne noonu la ko bi bëggee ci noonu lañ nekk ci euh, kilifteefam moom Cheikh Mouhamadul Fadal nga xam ne moo ko jiital boppam di ko saytul boppam jiite itam jiite jiital ci léppam waaye ñi nga xam ne ñoom la tegoon seen loxo ci liggéey bi tam amuñu woon yeneen yitte ju dul nekk ci liggéey bi ku mel ne Baye Thierno Fall dañoo yeggoon ci Baye Thierno Fall jumaa lañ koy wax ndax yeggoon na ci daanaka këram daaw fa dem jumaa ji ci lay xëy ci lay gont moo jiitoon lépp loo xam ne lu jëm ci soññee ci liggéey jumaa ji ak topp liggéey bi ak yéene taxawaay moo ko jiitoon nga xam ne lépp jumaa ji daanaka moom lañ defoon moom lañ defoon jëwriñ ci képp ku ci nekk ci nekkoo ci la nga war a nekk itam ci loxoom lañ tegoon lépp ku ñu wax sëñ mbay mbacc moom la sëñ bi dénkoon lépp lu jëm ci bagage yi jumaa ji mu di ko saytu ginnaaw bi nga xamee ne jox na Baye Ibrahima Faye caabi yi muy saytu caabi jumaa ji sëñ Mor Jaxate moo ki nga xam ne moo daan nodd ci jumaa ji di ci jiite sëñ Mor Jaxate da def bu tam jotee mu jugee njaareem ñëw siyaare sëriñ bi moo daan noddal sëriñ bi njaar daan nodd bi njaareem bokk mu daan def tam xarit bu jot tey siyaare sëñ bi benn tam xarit nag mu ñëw sëñ bi ne ko Mor Jaxate sëñ bi nga daan noddal wala njaareem ngay noddal mu ne ko sëñ bi laay noddal mu ne ko kon mi ngi fii mu ne ko kon toog naa ci la tàmbali di nodd ci jumaa ji di ci jiite te booba ñu ngi liggéey jumaa ji yeggagut di jiite julli waxtu juróomi sëñ Muudu Fati Kanni di jiite eh, di jiite naafile yi te booba ñu ngi liggéey jumaa ji sëñ Aafe Ñang ak sëñ Njóogu Mbàkke ñoo ñoroon soññe bi ci biir jumaa ji ak saytu bi ci biir jumaa ji ñoom ñaar ñoo ko yoroon ñoo nekkoon kilifa yi ci biir ci biir liggéey bi itam eh, ci biir liggéey bi ñoo nekkoon kilifa yi kon loolu mooy ni nga xam ne noonu lañ tërale woon programme bi nga xam ne noonu lañ doon liggéey jumaa ji noonu lañ ko tërale woon ci ci ak tënk ginnaaw bi nga xamee ne Euh, tubaab bi ak ñi nga xam ne ànduloo ànd nañ ñoom li doonoon seen liggéey ñoom moo doon euh, liggéey jumaa ji ak ni ko sëñ bi bëggee ci wàllu plan ñoom sëñ bi wutaloon na leen barab bu ñuy dëkk ba ci daara jumaa ji sax wutaloon nañ leen ci ay li ñuy wax ay ay ay ay nit ñu leen di toppatoo daal ñoo xam ne ñooy toppatoo seen kër ak di leen toggal togg yi nga xam ne moom la sëñ bi daan digle ñu koy togg ci daara jumaa ji daanañ ko defee ci biir daara jumaa ji ci boppam ndax daara jumaa ji nekkoon na fii nga xam ne fi la kër sëriñ Tuubaa gi nekkoon féete kër sëriñ Mbàkke Madina tuuti nekkoon na itam fii ci wetu kër sëriñ sëriñ Bass Fallu gi nekkoon na fi daanañ fa toggee daanañ toggee léeg-léeg itam sëñ bi wax ne nañ toggee kër sëriñ Cerno Fall daanañ def itam léeg-léeg ñu toggee kër sëriñ Mouhamadou Ñaan ba daanañ toggee itam léeg-léeg kër sëriñ Sidi Kebe ñoom ci bopp seen bopp itam léeg-léeg daanañ daanañ daanañ toggal seen bopp kilifa yi nga xam ne ñooy kilifa yoonu murid itam muy muy seex yëpp da sëñ bi daan leen sas ci lu jëm ci tojum xeere jumaa ji buñ masaana ñëw koo xam ne moo aaye toju xeere kilifa yi ko jiite sëñ bi daan leen jox ab dal fii nga xam ne moo féete tey kër sëñ daam atta bi foofu la defoon dalukaay boo xam ne bu kilifa yi ñëwee foofu la leen di dalal euh, ñuy def seen liggéey ba sëñ bi yeewi leen ñeneen ñeneen ñeneen door ñeneen a ñëw kon noonu lañ nekkoon ci liggéey bi wax naa ko léegi sëñ Mor Talla Fall ak ku mel ne sëñ jaxat jaxate ñoom ñoo ak di ko Baay di ko yenn di indi am ñoo xam ne dañuy yor seen oto Euh, di sëf di indi sëriñ bi deen fay boo sëfee ay xeer ca carrière ba sëñ Mor Talla Fall da bindal kayit bi wane ne sëfee nga fi ay xeer boo ñëwee jox ko sëñ moor bi nga fekk jumaa ji wane ne sëñ Mor Talla moo la ko bindal mu fayal li nga war a fay booy delluwaat nga door a delluwaat bi ñuy liggéey jumaa ji itam ndox mi nga xam ne moom la ñu liggéeyee ci njëlbeen sëñ Mourou Moustapha moo digaloon sëñ Mourou Moustapha Fall mu gas teen bi nga xam ne moo ne ci kër sëñ bi ñu koy wax jaaj Fall ginnaaw bi lañ gas xaynu reda mooy teen ba ci ginnaaw kër sëñ Mbàkke Madina ngir mu dimbali ginnaaw bi Cheikh Mahamadou Fall waajal nag ci la indi forage Daaru Manaan bii ci la sàkk mbànd yi nga xam ne ñoo waroon jumaa ji ñu ciy root di liggéey jumaa ji kon xam naa dañuy yemane foofu ba ba ci kanam incha allah sëriñ Khalil Mbacke barakallahu ci exposition bu am solo bi nga xam ne def nga ko tënkaat nga bu baax a baax taarixu jumaa ji ak étape yi nga xamante ni ci la jaar ci bu Cheikh Mohammed El Fadel muy lu waroon a jafe lool ngir tolluwaayu jamono ak itam tolluwaayu liggéey bi ni ko sëriñ bi bëggee woon ñëwal nga ñu ci ndigal li nga xam ne moom la ci sëriñ bu mag bi joxe woon waaye Cheikh Ahmadou Fadal nag am ci ngëneelu boppam loo xamante ni moom rek moo ko jagoo muy loole ko Cheikhul Xadim waxoon ne ko kuy ñëw na la ci fekk waaye kuy dem itam na la ci baax waxoon ko itam xeer wi ci njëkk yaa koy teg waaye wa ca mujj itam yaa koy teg moo tax bi jumaa ji yeggee mel ni nga xam ne moom la bëggoon mu sadd ay bayti xasida sante ko sëriñ bi waaye sante ko suñu borom itam mi sottal liggéey bi ci moom wax nañu ne wax na ca wax ju siiw nee na ko mbàkke fii la ñu toll tollale ko fi bu ñu ko weesoo weesule ko yow loo jaw loo jarul amut wane kon liggéey bi lu rëyoon la ci liggéeyu Cheikh Modou Fadal waaye mu sottal ko nag ci organisation bu am solo ndax lii fi sëñ Xalil wax mënoon naa doon loo xamante ni luy sotti lay doon waaye boobaa cell tega day des waaye gis nga ni mu ko doon ñoree woon ba tax lépp lu ca mas a dem mu doon loo xam ne luy ànd ak ndigal lay doon ba lépp lu ci waaye mas a def te àndut ak ndigal daf koy ber kon jumaa ji jumaa la joo xam ne mënees na koo boole ca jumaa yooye alxuraan di wax ne la masjidun ussisa ala taqwa te muy lu wér kon suñ xalit ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax di wax na ci jotaay bi léegi nii rek jëwriñu liggéey bi sëriñ ahmadul wi ibnu shahmad al fadal teew na ci te moom moo yore commission euh, organisation bu màggal Kazu Rajab koy ñaanal suñ borom guddalaw fanam lool te wéral ko waaye mbokkam itam suñ Cheikh Awa Balla Mbàkke ibnu Cheikh Ahmad al Fadal taxawaay yu am solo yi nga xam ne moom itam wàccaayu màggal gi waaye da ko def itam ci taxawaay yii nga xam ne euh, taalibe yi dañ koy faral a def muy doon koo xamante ni ku ci am ay taxawaay la ñu ngi koy ñaanal moom itam suñu borom guddal aw faram te wéral ko bu baax a baax kon dañuy daal di wéyale rek liggéey bi ñu ngi sant itam mbooleem ñi nga xam ne teew nañ fi ci jotaay bu am solo bi du ñàkk danañ ci ñëw bu ñu demee ba war jeexal incha allahu taala danañ ci indi ay commentaire sëriñ Modou Khayri Ñang mi xam ci xam-xam ba te rafetal ko lool nag dana ci indi ay commentaire rawatina nag ci exposition bu am solo bii nga xam ne euh, dañ koo def te jagleel ko nag liggéeyu jumaa ji ci ayuk Cheikh Modou Fadal dana ci ñëw incha allahu ndax li mu fi wax nii lépp yaxal nañ ko ci am mbind exposé ko ci langue yu wute nag danañ ci ñëw kon dañuy jox sëriñ Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno su ko defee moom itam mu ñëwal ñu ci Cheikh Ahmadal Fadal ba tey ak jumaa ji ndax duñu ko génn mu doon taxawaay yu am solo ak importance bi nga xam ne Cheikh Ahmadal Fadal jagleeloon na ko jumaa ji waaye wane ci itam pas-pas bu rëy ba ni mu tàmbalee ba ni mu yeggee ñu tijji ko mu tijj ko ba noppi jiite ko ay at wala ay weer yàlla suñu borom jële ko fii yàlla yàlla dolli ko yërmande bu baax a baax te tas ñu ci barkeem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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara bu baax te di leen ndokkeel ci weeru tedd bi ak bis bu tedd bi nga xam ne moom lañ jublu si. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi te wéral ko waaye di nuyu bu baax sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Amadul Fadal mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Amadul Fadal di ko ñaanal yàgg ak wér ak njaboot gi yépp di nuyu kilifay jataay bi Cheikh Ahmadul Badawi mu Cheikh Ahmadul Fadal ak sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke mu Cheikh Ahmadul Fadal ak kilifa yi fi nekk yépp rawatina ñi nga xam ne ñooy taxaw liggéey bi muy commission culturelle bi nga xam ne ñoo nekk ci biir daaira Ahfad Cheikh Ahmadul Fadal di am mbégte bu baax ci jataay bi ak li nga xam ne ci la ñuy waxloo muy doon lu ñu sawar muy indi ab tënk ci Cheikh Mouhamadul Fadal ak jumaa ji muy loo xam ne mëne su ko waxtaanee sax daanaka ci diir bu gàtt lu am am solo la kon Cheikh Abdoul ni ko sëriñ Khalil waxee ni ni mu ñëwee jàpp naa ne danañu dimbale ngir yenn yi nga xam ne indi na ko détaillé ci ñu bañ cee jaar ngir tamit ñun li ñu wax gën a mën a gaaw suñ dee wax ci jumaa ji sëriñ yi wax na ko léegi maanaam jumaa lu màgg la waaye jumaa ji nag dafa doon beneen affaire boo xam ne euh, dañ koy seppe ci biir màggu jumaa ndax euh, Cheikh Amadou Fadal ci discours am bu mujj bi wax gis ngeen bi muy wax jumaa ji àgg na wax na ne jumaa ji nga xam ne moo gën a rafet moo gën a barkeel moo gën a tedd ci gox bi ñu nekk loolu kon dafay am leneen lu lu muy firndeel beneen bi ni ni ko sëriñ bi ni ci sëriñ bi amee ndigal tamit ni mu ci amee ndigal moom Cheikh Khadim dafa bokk ci yi nga xam ne sunu borom da koo fayee ci tukkeem bu tàdd bi muy tukki géej ndax xam nga ne bari na ay mbir yu am solo yoo xam ne yu doon wuti dafa mel ne jumaa ji dafa bokk ci pay yi ko suñu borom faye munuñ cee guddal Euh, <clears throat> waaye xam ngeen ne ci ci Mayomba ci jataay boobu bant yooyu mu sampoon ci Mayomba ngir doon ko def sutura ngir ngir bañ soldaar yi di jaar ci kanamam di julli bant yooyu lañ sempi la la kilifa ak soldaar ga sempi woon sànni ko ne ko bëgg a yàq suñ soldaar yi di julli amu fi jàpp naa ne ci la sëriñ bi defee tawasul ci xasida boobu nga xam ne da ko tënkee rabbana axrijna muy raditu xanil mawla taxala lasi rabba fuadi wa axnaani wa akrim bihi rabba baakti ci lahu tub salaatan masalaamin bi alihi wa asaabihi wajxal bihi masjidi rahba sunu boroom xamal ko ne ko e, segam def nañ la lu la naqarikat nga wëlbatiku ngir def ngir ngir sant sama borom ak ñaam lii ñu la xañ may naa la ko muy jumaa joo xam ne sëriñ bi ci boppam wax na ne teg naa ci sama bët kon loolu kon dafay wuute tamit yeneen jumaa yu ñu koy tëkkaleel ngir ni ko sëriñ bi amee bu dee bu dee Cheikh Amadou Fadel nag jumaa ji da cee taxaw ñetti taxaw ñetti taxawaay yu bokk bi ci njëkk day jamonoy sëriñ bi bi ci tege di jamonoy Cheikh Amadou Moustapha waaye bi ci tege nag bi nga xamee ne nag mbir yépp mu ngi ci loxoom benn bu ci nekk rek doy na sëkk waxtaan ndax benn bu ci nekk da cee taxaw taxawaay yu rëy rëy rëy kon ñu ñu taxañ ko bu dee jamonoy sëriñ bi ni ma ko waxee segam sëriñ bi su borom moo ko may jumaa ji wan ko ba noppi it sëriñ bi wax na ne loolu suñu fàllu sax nettali na ko nee na ci saasa euh, junne yi ak malaayka yi ñëw nañ sox doon sàkku ngir liggéey liggéey bi ngir xam njariñ la ci nekk waaye suñ tubaab moo ne dafa am njariñ lu tabax jumaa ji di amal taalibe yi ak xeetu Sénégal ba tax mu xañ leen ko loo taxoon sëñ Fallou daa wax ne kon moo tax sëñ bi daa wax ne mi ngi noonu nañ nañ ci farlu ndax suñ ko defarut ñeneen danañ ñëw defar ko kon ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ loolu nag moo tax sëriñ bi ci boppam njariñ loolu mu bëggaloon yoon bi euh, bëggal ko julliti senegal tax na mu woote liggéeyu jumaa ji jataay ba ca njëkk sëriñ Xalil wax na ko léegi Sëriñ Amadou Fadel fekke na ko ndax booba sëriñ maam Thierno Birahim sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou sëñ Mbacke Bousso euh, la sëriñ bi woo wax leen nettali leen li ma nettali léegi ni ko sunu borom joxe eh, jumaa ji ak lim ko ci dig loolu ci atum mille neuf vingt cinq la loolu léegi nag bi ñu demee ba mille neuf vingt six sëriñ bi woote waat sase sasam woowu muy euh, ñaar fukk ñaar ak juróom-ñett yi ngir tuddewoon ko njotu bopp ba noppi defoon discours boo xam ne euh, moo jeexital ba tax suñ dee wax màggu jumaay Tuubaa ak ni mu ràññi ko ak na mu wuteeg yeneen jumaay yi sëñ boobu sëñ ba da caa feeñ ndax bi mu ne bi mu santaanee ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett soññ ci taalibe yi ba noppi dafa wax ne na ngeen nangoo liggéey te na ngeen farlu ndax jamono ngi ñëw ci kanam joo ne ku la mënal sañal la te ku la sañal dina la gàllankoor ci sa diine wala ci sa ngor dafa mel ne wax jooju jeexital na lool ci mag ñi ba boo dee xool yoonu murit niñ farloo ci sas ay dëkk ak nangoo liggéey moo xam ci biir réew mi ak ci bitim réew nga xam ne li yoonu murit sos ci ay dëkk ci Sénégal boo ko ci génnee li ci des lu bëri soo xoolee ci capital yi Sénégal yi tamit économiquement niñ niñ farloo ci liggéey soo demee bitim réew tamit niñ fexee niñ déggee waxe sëriñ bi ba fenn fu nekk dañu fay fexee am seen jëfi bopp ndax ñu fay mënal seen bopp di fa sañal seen bopp loolu lépp dafa jóge ci soññeb sëriñ bi noonu loolu nag tax na kon ñi ko wuutu ci jamonoom ci jamono yi mu yi mu yi mu fi nekk moom sëriñ bi sëriñ bi digal na maam Thierno mu jóg Daaru Musti ñëw fii ñu tàmbali jumaa ji ci jamono ci ay jamono boobu fekk si Amadou Fadel nekk fii ñu tàmbali ko ci penku jumaa ji fi tàmbalee jullikaay yi it bi jëm nale ci armeel yi foofu lañ ko njëkkoon a tàmbali te loolu liggéey yi ci njëkk dafa am taxawaay yu rëy yoo xam ne Cheikh Amadou Fadel taxaw na ko ci wax sëñ bi wax na ko léegi ndax moom ak ak njabootam ñoom ñoo demoon ndokk ginnaaw buñ nattalee xool diggante cees ak ndokk ba xam yan xeer ñooy gën ci xeer yi war a mën a tabax jumaa ji yàlla dogal na moom ci boppam ñoom ak ay ay ay njabootam ñoo feeñal xeer wi bi nga xam ne moom la ki doon tabax jumaa ji wax ne xeer wi mooy bi baax wi gën ci tabax jumaa ji moom ci boppam it moo ko jox ab taalibeen bu mag mu dem wane ko sëriñ bi loolu lu rëy rëy la loo xam ne ci njëkk moo tax mu ne maa njëkk maa mujj loolu lu rëy la loo xam ne tamit mat naa bàyyi xel kon jamono yi maam Thierno it da cee tabax da cee taxaw taxawaay bu rëy rëy rëy xam ngeen ne vingt 1927 sëriñ bi daf fee jógee kon yàggul liggéey boobu dafa daal di dafa daal di taxaw dafa taxaw nga xam ne daanaka dañoo reprendre lépp fekk histoire bu gudd a gudd la ci jamono yi ginnaaw bi sëriñ bi jógee xaalis bi fi nekkoon nga xam ne moo doon garanti baak la ca ajoog ak euh, jafe-jafe yi ca am yooyu yëpp maanaam mu ne su koo indi ci ci waxtaan yi waaye euh, ginnaaw bi it Cheikh Sëriñ Fall dafa wéyal ab taxawaayam ci ginnaaw Cheikh Amadou Moustapha Cheikh Amadou Moustapha tamit daal di jël liggéey bi euh, wax ak kilifa yi tubaab yi def autoris ñaanu autorisation bi ñu may ko ko mu woote ci 11 novembre 1929 ngir tubaab yi liñ ko njëkk a wax ci ne balaa liggéey bee mën a am day am saxaar goo xam ne mooy mën a sëf matériel bu mag waaw ndax ay cëf ka mënuñ koo sëf ay ay giléem ak ay mbaam mënuñoo sëf matériel bi dem Touba kon raay il faut nga defar ko te ñun mënuñ koo defar mën nañ laa jox xam-xam bi waaye moyens yi ak li ci aju ak nit ñi koy liggéey yaa koy wut tegal ko ci sart yu metti dañuy lekk ndawal dañuy lekk ceeb danga leen di fay ak yooyu yëpp jàpp ne mënu koo am waaye loolu lépp Cheikh Modou Moustapha jël engagement signé euh, Cheikh Modou Fadil taxaw ci taxawaay bu rëy ndax ñi équipe bi nga xam ne ñoom lañ njëkk a tànn ngir ñu war a tàmbal liggéey bi ànd ak tubaab yi bi ñu ñëwee seeti Cheikh Moustapha bi da leen yabal ci Serigne Fallou booba Serigne Fallou gi nekk fii ci fi kër Serigne Saliou wax na leen ay wax yu yu jeexital yoo xam ne soññ na leen loolu te xam ngeen ne diir bi tubaab yi àppaloon liggéey boobu sax àggu ca te loolu ay taxawaayam ma nga ca yoo xam ne tamit euh, yu bëree bëri la ñoo xam ne jamono Cheikh Moustapha euh, taxaw na ko ci ba saxaar gi agsi ci 21 mars 21 mars 1931 la saxaar gi agsi fii te loolu moo doonoon premier point bi nga xam ne moom lañ jàppoon ne suñ ko waxee dana doon gàllankoor bi gàllankoor liggéey jumaa ji loolu taxawaay bu rëy rëy la boo xam ne Cheikh Moustapha taxaw na ko ci ak yeneen léegi nag mu des ñaareelu taxawaay muy tàmbali liggéey bi tamit tàmbali liggéey bi tamit ni mu demee woon ci njëlbeen gi bi maam Thierno ñëwee woote Cheikh Moustapha bi mu ñëwee dafa am cër yu rëy rëy yoo xam ne joxoon na ko ci Cheikh Fadal delloowaat buum ca boy boy ba ngir ca liggéey bu njëkk ba ca ndokk ak yu ñuy demee ndax bi nga xamee ne Cheikh Moustapha saxaar gi agsi la ba mu woote nag ñu war a tàmbali liggéey bi nga xam ne suñ Mbàkke Buso bi nga xam ne moom la sëriñ bi joxoon ndigal ngir mu natt jumaa ji ñëw na ci yoor yooru ajjuma 19 février 1932 ngir ñu fas yéenee nag euh, natt jumaa ji ngir jubale ko xibla ngir jubale ko xibla gis naa ci téere adaaxul fadaayil bi ñuy ñuy ñuy wax ne sëñ Mbàkke Buso bi mu ñëw ànd nag lenn ci ay doomam waa dëgg la sëñ Modu Xari bu sëñ Modu Xari Faañang euh, ak sëriñ Baaxeer ñoom la sëñ Mbàkke àndaloon ci bi ñuy natt jumaa ji ci ci ci yooyu maanaam ci biir sax ci kanam danaa ko léegi am na ay mbind yoo xam ne sëñ Fàllu binduloo woon na ko sëñ Modu Xari nga xam ne mbindum loxoom ba léegi mi ngi fi te ci loolu la aju ci wàllu xëy na sëñ sëñ Xalil mi doon wax organisation bi bu amoon loolu dana gën a Euh, wax na mbind yi waaye bu amoon mbindum loxo moom it dana gën a préciser ci lim doon wax bu baax a baax kon soo dee euh, ñu ñu ñu gën a tënk foofu boo dee xool kon taxawaay yooyu Sëñ Fallu am na ko ci ci jamonoy Cheikh Moustapha ci ànd ak moom ci ak ci mbooloom ak ci te lu dara lu dul lum liggéey jox ko Cheikh Moustapha ngir mu dem ci ci jumaa ji ci dat boobu ñu wax ci lañ natt jumaa ji ñu dagg garab gi 22 février 1932. gas fondation bi eh, yor yorub ajjuma it moom it dëppoo 4 mars 1932 teg xeeru jumaa ji moom it yor yorub ajjuma 25 mars 1932 léegi nag bi ñu demee loolu jamonoy Cheikh Moustapha nag liggéey bi daal di taxaw bi ñu demee ba 1939 40 nag liggéey bi daal daal di taxaw ci jamonoy Cheikh Moustapha boobu liggéey na jumaa ji ba fenêtre yi jóg bañ bañ koy bañ ñuy tàmbali seen yenn yenn solo bi euh, foofu nag la Cheikh Amadou Fadal nag wuutu Cheikh Moustapha ci jataayu sëriñ bi nag daal di yor responsabilité yi yoon wi fas yéene nag jiite liggéey bi nag li ndigal yi ko sëriñ Touba joxoon nag dëgg dëgg dëgg nga xam ne nekkoon na ci nekkoon ku ñëw na la ci bàyyi ku dem na la ci fekk moo taxoon mu am ci taxawaay yooyu ci jamonoy sëriñ bi ak jamonoy Cheikh Moustapha kon nag bi mu nekkee ci loxoom rawati loolu nag tax na moom la euh, le 16 mai 1949 ci la woote ci la woote woote bu mag a mag a mag mag wax wax ju rëy bokk na ci lii mu waxoon ñu ngi koy mi ngi ci ay kaset ba léegi wane ne sëriñ bi suñu borom moo ko jox jumaa ji te gis na ko te buñ ko liggéeyut dana yebal ñeneen ñu ko liggéey kon ku ci feeñ dootoo réer ku ci réer dootoo feeñ soñña ci maanaam def ko daal euh, muy laccam woo xam ne maanaam fi mu ci tolloon ci wàll pas-pas mu ne su koo takk loolu mu ne mu ne su koo takk soo xool nag ci loolu suñu xaleel bi mu wax léegi organisation bi mu teg xam na ne jumaa ji buñ koy liggéey li ci njëkk nag mooy am plan yi histoire mënta maye ñu wax lim daj tamit ngir jotaat plan yi ak euh, mën a xam fan lay tàmbulee loolu yit liggéey bu rëy rëy la boo xam ne wax dëgg yàlla sonn na ci lool lool gëstu nañ ci lu bari xam ko waaye eh, jataay bi mënut kii ñu koy ñu koy kii waaye daj na ci coono yu metti nag ngir liggéey bi mën a tàmbaliwaat ci loolu nag eh, lañ eh, la tàmbaliwaat nag liggéey bi woo taalibe yi ak yoon wi njaboot gi yëpp xam ne mënuñoo cité benn tur waaye mën nga ne yoon wépp rek waaye li mu njëkk a def dafa tàmbalee ci boppam sos ay dëkk suñu xalil wax na ko léegi boo dee xool ci wàllu dëkk yi mu sos moo xam aliya la moo xam Touba Bogo moo xam boo Bogo sax moo mujj waaye aliya ak Madina mbooba daanaka bokk na ci dëkk yi nga xam ne ñoo fa lañ gën a bayee li doon ñëw ci jumaa ji bokkut ak nag sas yi nga xam ne addee yi yi jóge ci ci nit ñi waat dafa am solo ci ci ne li may liggéey su fekkee nar naa cee jariñoo dara lu jëmul ci jumaa ji yàlla na mel na xorom loolu dafa dafa jeexital dafa jeexital ci mbayum Sénégal wala mbayum Afrique sax ndax mag ñi nga xam ne man si jarum daana mu nettali na ma bi jumaa ji àggee dafa mel ne tool yi dañoo tàmbali sax di wàññiku di gàntal waaye jamono yi liggéey jumaa ji daal ni mbay daan nangoo ak ni gàncax gi daan naate moom moom yéeme na soo dee xool tamit ci jamono jooju bari na luñ loo dégg ñuy nettali ñuy nettali ci baatinu Sëñ Fallu wala xar baax yu def ci soo ko soo ko xoolee daanaka benn ci ñi nekkoon ci tool yi di bay la wala ñu nekkoon ci jumaa ji ndax jumaa ji moom dafa waxoon ne kenn du ci loro loolu lu wér la loo xam ne moom mar sëñ Samba Ngom fii la dëkkoon jóge na ci kaw sooral bi xaw xawee ko fi daanu ci suuf sooral bu mag bi dér ci suuf te dara euh, mi ngi fi woon di defar ay mbànd lu yàgg euh, niki noonu léeg-léeg nga dégg ñu wax ne doon na yedd fas waa ki jaan ji mattoo nag ki xar yi ngay dégg yu ci bari man jàpp na ne sëñ euh, dongo yi nekkoon ci daara yi di bay ak ñi doon liggéey jumaa ji bëri na ci yoo xam ne ñoom la defaloon garantie boobu moom daanaka ngir bañ liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi dara dara gàllankoor loolu tamit day day lu am solo doxinu liggéey bi tamit nag daf cee dox doxin yéeme yéeme ndax ni ko sëñ Xalil waxee ci organisation bi ci biir liggéey bi xam ngeen ne xaalis bi ñu daan liggéeyee espèce lañ ko daan fay fayee tubaab bi dégg naa sëñ daam daraame sax di ko nettali te dañ daa ñëw ñuy waññi bu ñuy jëndi marchandise ak bu ñu koy fay yooyu yëpp dañ daa ñëw ñu wàññi jox tubaab waaye lu ci ëpp ci mbayam lenn li ci àddee yi taalibe yi nga xam ne at mu jot képp koo xam ne bay nga danga nga dem sarse ab oto oto xeer boo xam ne danga koy sosoo maanaa amul menn at wala benn benn ay weer yu néew yu dul loo xam ne danga nga da nga sarse ay xeer da nga joxe addiya waaye tamit da nga am bis boo xam ne loo joxe joxe joxe am na bis boo xam ne sa bis la da nga ñëw toj si xeer wala nga aj si ma ci biton ba tooy na wala nga def la leen nga xam ne dafa binduloo woon këyit yi sëñ Modou Khary nga xam ne mbindum loxoom la ci dëkk yi wër Touba yépp nga xam ne kenn ku nekk am na bis booy ñëw boo xam ne soo ñëwee bala ngaa ñëwaat dana mat ñaari weer wala dara ci li sëñ yi doon wax léegi te ñooñu dañ leen a séddale woon ñuy ànd ak daara ji nekk ci jumaa ji ñenn ñi dañuy dem di jàppale ñiy aj euh, ciment bi ñenn ñi di di toj xeer ñenn ñi di indi suuf ñenn ñi di di liggéey ci yenn liggéey nga xam ne boo dee lim dëkk yi sax ni ni mu ko limi nga xam ne Mbàkke Bawol la ci jiiteel Mesre Mbayeen euh, Touba muy daara yi Sëñ Fallu ju newoon ci jumaa ji Daarul Xuddoos Daarul Mannaan Daarul Alimul Xabir Daaru Salaam Madina Touré ñoom la ñoom lañ boole daaru rahman ak moodi ñoom lañ boole woon bis daarul karim kayre mbàkke gede ak fetto ak kër ñang tindoodi nayda kellal ñooñu ñoo bokkoon bis ñoom ndindi euh, sidi bulel kayre mbay mayel bakkura njallaxaar pëf di kër ma kumba kebe euh, ndok bobi tuuba kayel mbul jamwelli daaru nahim madina mbàkke sekkeen tayba Tayba Cekkeen dëkkub suñu seexaw balla fi xam naa euh, euh, Lumbel Saye Ndilliki Kànka Caaween Boofel Ngaabu Mbàkke Ngaabu Ngaabu euh, Sànqaay ak Ngaabu Jóob Saam Gede gis nga Saam ak Gede ñoom la boole woon muy waa kër suñu Mamour Jaar ak suñu suñu Mbàkke Buso day sakku jaaj ji Mbam Fana Tawakun Xulle Ndula Njàppundal xuru mbàkke saaxo Touba Fall daarul xafoor bépp sam euh, xewar lukkel kon ñi miin dëkk yi wër Touba xam nañ ne benn dëkk desul ci dëkk yi wër Touba ñooñu nag da leen organisé woon noo xam ne kenn dëkk yi dëkk bu nekk danga am sa bis sa bis boo xam ne ci ngay ñëw pour liggéey si jote wut nag addiye yi dara dara dara dara voilà danga am sa bis nga xam ne ci ngay ñëw ngir liggéey si loolu nag bokkut ak nombre personne bi nga xam ne dañoo dëkkoon ci jumaa ji mu séddale leen ci ouvrier yi ñii ay ferrailleurs la la lañ leen féetaleel ñii menuisier bois ñii euh, mason yi ñii euh, gaskat yi ñi noonu la leen noonu la nga xam ne ñoom euh, tubaab bi dafa mel ne xam-xamam rek la doon fay waaye lépp luy méndeebu luy méndeewu ci toj doj yi ciment bi euh, ak yooyu yëpp taalibe yi ñoo ko doon def waaw ma maanaam maanaam taalibe yi ñoo ko nga xam ne léegi amul lenn loo xam ne lu ci lu ci tubaab yi indi seeni niti bopp la nga xam ne wuute nag léegi nga xam ne tey suñ dee liggéey lu xay na lépp ay milliards lañ koy jënde maanaam daanaka dañuy wut benn société mais jumaa yi moom bi ñu koy liggéey dafa wuute ak liggéeyin yi maanaam ndax booba euh, duñ fay duñ fay méndeeku maanaam murit yi béton ba tooy na rek lañ lañ ko lañ ko liggéey ci jamono jooju kon soo dee loolu ci biir ci biir liggéey bi dox na ci doxin woo xam ne euh, léeg-léeg suñaa dañu ko nettali ci ne jamono yi ñu liggéey jumaa ji suñ fallu da nga daa ñëw fekk ko fii moom dong mu toog nga xam ne ku ko nuyu sax daanaka du jàmmante ak bu baax maanaa day da lay bëgg rek nga daan dem ca liggéey bi maanaam nga xam ne amutoon kenn tëltoon dara lu dul liggéey jumaa ji loolu nag day engagement yu rëy rëy yoo xam ne euh, bàyyi na xel lool liggéeyu sëriñ mu def ci mu am ci ndam lu rëy rëy rëy rëy ndam lu rëy rëy euh, loo xam ne euh, yomb loolu kon mooy période liggéey bi ci boppam bi nga xamee ne tamit dem na ba doxee ca noonu te li may wax nag moo yoon wi yëpp ñoo ko àndal ci noonu la doxee ba liggéey bi mat ci ay loxo ci Euh, dañuy wax la 7 juin 1963 mais jumaa ji àgg na sax lu mat ñaari at wala at ak genn wàll laata ñu koy julli foofu tamit dafa am taxawaay bu rëy bu fi def ndax bi jumaa ji àggee dafa gis ne bala ñoo wootee julli jumaa ji tamit war nañoo nosaat dëkk bi ci anam mooy ci lañ créé mbedd yi mbeddum dar Musa ak yoonu Daara Jolof ak mbeddum mi jógee Mbàkke maanaam tëli yi nga xam ne ñoo dugg Tuubaa yépp jëm si ci jumaa ji ci lañ ko defar maanaa defar tëli yi war a ñëw nga xam ne kuy foo mën a jóge rek dangay am yoon woo jaar ngir ñëw ñëw Tuubaa fexe ba tamit courant bi am fexe ba ndox mi am fexe ba marché Ocass bi taxaw ak yooyu yëpp euh, dafa doon yoo xam ne mënutoon a ñàkk euh, ci dëkk bi bi bi mu organisé yooyu yëpp ba noppi nag la doogo wootee ngir ñu ubbi jumaa yi la 7 juin 1963 section et 1963 dépassé ci xaalis bu bëri boo xam ne tubaab bi doon def discours bi bi ñu ubbi moo ko wax suñu xalil wax na léegi ñu doon teewee julli jumaa ji ak nam demee mën naa cee bañ a ñëw waaye yor yorub juma bi nga xam ne ci la sëriñ bi am ndam lu rey loolu ñu jébbal ko caabi ji mu jàkkaarloog sëriñ Touba nekkoon ni nga ko bëggee woon ni nga ko yéenee woon mi ngi nii seenub yaxa gi noonu ba foofu dépassé ci xaalis boo xam ne tey suñ ko xayma woon ci fra ci ci CFA jàpp naa ne lim yi ñuy wax ci ay milliards dana ko romb lool ndax 677 millions 648 mille 838 ci su ngurdu maanaam Cheikh Amadou Fadal dépassé na ko ci liggéeyu jumaa ji loolu nag da ci génne bépp liggéeyu yi xeer yi ndaa yaroo muy jóge ndokk ak yooyu yëpp dañ ko ci génne te li ci yéeme sax mooy jamonoy Cheikh Moustapha ciment bi ak ndox mi ak yu ñu demee ci bëri gaar bu mag lañ ko daa yanoo muy ñëw moom nag bi mu toogee dafa jël raay bi xëcc ko ba fii ci bopp raay bii ci gaar bu ndaw ngir mu jege ciment bi ñu koy sippi fii ci wetu kër sëñ baara gi fii boo xoolee am na janji bu fi nekkoon boo xam ne bi mu fi jógee yàggul fi la lañ daa wàcce ciment bi nga xam ne lépp dafa jege loolu tamit euh, lu lu lu lu bàyyi xel la beneen bi tamit ni mu jële woon euh, ouvrier yi jaxase leen ak tubaab yi loolu tamit dafa am lum jur euh, suñ xalil mi ngi koy wax léegi ci wàllu organisation waaye boo xoolee métier yi nga xam ne Touba am nañ ko yépp ginnaaw bu jumaa ji àggee jëggaaneetuñ dara maanaam jëggaaneetuñ dara maanaa ultrisin ginnaaw jumaa ji la am Touba ba léegi waa kër Baye Joxaane yi gis nga boo sox bu sa te lu lu paan maanaam fu ñu ko jàngee weesuwul nekkoon jumaa ji da gis ñu naan suñ diw maçon suñ diw menuisier suñ diw nangam yooyu yëpp nga gis ay kilifa lañu woon wala ay doomi soxna yoo xam ne ci daara yi jumaa ji lañ nekkoon waaye métier mi am ba tax ñu mën a tabaxal nit ñi ay kër ñi mën a installal nit ñi courant ñi mën a defaral nit ñi ay lal moo xam lali lali bois la wala bunt yi weñ yi yooyu yëpp tamit ci liggéey jumaa ji la ko Tuubaa amee loolu tamit dafa doon loo xam ne lu mat a préciser la ci xalaatu Cheikh Amadou Fadal la amee ci xalaatam la amee beneen bi ci des tamit am na lu dolli ci jumaa ji loo xam ne tamit ñun ñi dañ koy fàtte jumaa ji plan bi ñeenti sooroon la woon ñeenti sooroon la woon Cheikh Amadou Fadal ci xalaatam moo ci dolli seeroon bi bu mag bi bi ci digg bi làmp Fall nga xam ne quatre-vingt-sept mètres la gudde loolu ci xalaatam moo ko proposé tubaab bi ñu dolli ko ci te gis nga dafa mel ne mënu cee ñàkk ndax loolu sax waaw dafa mel ne dafa da cee judduwaale loolu nag euh, wax fir li man banaw binaa i xarraf yi wax fir li man amarahum bi jami wa li man ahaanahum ala binaa i allazi bi fadlika tala fallu mbakke ci la kawe maanaa kon boo xoolee bi fàttalika talaa dangay gis ne baatu sëriñ Fallu Mbakke da ciy génn ba noppi mu xalaat sorol bi nga xam ne moo gën a gudd ci sorol yi ngay jumaa yi ñu xam fii ci Afrique soowu jant ba noppi mu mu def ko te te sëñ bi gis nga bi ni mu wax ci Matlabul Fawzayni ci bi muy ñaan njëggal ci ñi ñuy tabax tabax bi ak ñi leen ci dimbale ci ak tabax bi nga xam ne ci sa ngëneel la kawe waaye gis nga baat bi mu wax ni méngoo tamit ak turu sëñ Fallou muy muy e, sëñ Fallou Mbacké fan Fadilu Mbacké beneen bi xalaat bi nga xam ne def na ko ci muy jàngukaay bi mu bi mu indi ci jumaa ji loolu tamit dafa dafa mat di wax ndax tey niveau bu kawe bi mu am ak ni mu jiitoo jamonoom tey plan jumaa yi nga gis ci àddina boo demee Arabie Saoudite wala nga dem ci yenn jumaa yi da gis ne jumaa yëpp léegi dañ ciy boole maktab boole ci daara boole ci fu ñuy tàggate ak yu demee noonu moom tamit moo am xalaatu jumaa ji am jàngukaay boo xam ne daf koy amaale ci njëlbeen mu ubbi jàngukaay bi yaakaar naa le 9 wala 10 novembre la la ubbi jàngukaay bi suñ bu sa ilimaan moo fi njëkkoon nekk may matul ñaari weer wala ñett moom moo proposé sëñ Fallu ñu indi suñ Alaaj Mbàkke Jaxate ngir mu yor jàngukaay bi léegi nag xoolal tamit jàngukaay bi nga xam ne sëñ Fallu def na ko ci biir jumaa ji tamit lim jural Touba lim jural tuubaa ci ay boroomi xam-xam tey boo dee xool ñi ŋànk xam-xamu dëkk bi université bi rek boo demoon seet ña ko yor di ko doxal ñoom ñépp man nga ne ci daara ji lañ jóge bari na sax njariñ loo xam ne sax commission culturelle bi jariñoo na ko ci gëstu yuñ yuñ jot ci sëñ Fallu eh, sëñ maam Mor moom Cheikh Mamadou Fadal yaakaar naa liggéey na ci liggéey bu rëy te ci daara ji la génne maanaam mën nañoo wax nekkoon xam-xam bi nga xam ne moo ŋànk yoonu murit tamit fi mu ne nii may wax ak yow ci daara jii la bàyyi ko te loolu tamit ci liggéey bu rëy boo xam ne euh, suñu alaaj Mbàkke Jaxate euh, liggéey na ko waaye ci xalaatu Cheikh Mahamadul Fadal beneen bi tamit ba léegi ba nii ñuy wax sax mel ne daayira bu Xaadimal Xidma ndax jumaa ji bi ñu àggee président Senghor ci gëstu yu ñu doon def biñ jullee ba noppi dégg naa wax na si Fall ne ko euh, jumaa ju toll nii kenn waru koo bàyyi rek te du am entretien kon sëñ bi est-ce que kon duñu wut euh, ay nit yoo xam ne état bi da koy booleek yow ngir ñu yor entretien bi ak yu leen demee waaye wax nañ ne Cheikh Amadou Fadal dafa mel ne dafa tànqam wax jooju waaye fekk na mu amoon lu xalaat manaat ci la xalaat recruter personnel bu bëree bëri laaj kër yëpp doomi sëñ bi ak seex yi mbooloo mu dul jeex li doonoon seen liggéey mooy sàmm worma ji ak taxaw entretien bi sàmm worma ji ak taxaw entretien bi yaakaar naa fàttewu leen leen kenn ku nekk ci kër la bàyyi ko woon ñi daaru Xuddoos ñi daaru Minam ba ci këram yaakaar naa mën nañoo citer rek suñ seex Ndindi Njaay euh, bokkoon ci ñim joxe woon ko ñooñu lu doonoon seen liggéey mooy bale jumaa ji ak sàmm worma ji jàpp naa ne looloo mooy relève bi nga xam ne daayira Muxaddamatul ma jël na ko te loolu kon damay wax ne kon su daayira Moukhaddamatoul Khidma sosoo wala dara kon dafay mel ne kon ci taxawaayu Cheikh Amadou Fadel la ndax loolu lañ loolu lañ jël kon soo soo ko dee natt daal ci taxawaayam ci ci jumaa ji ci sagam dañoo tënk waxtu yi maanaam mu ne su ko jeexal ci fànn yu bëri ndax jumaay Tuubaa dafa wuute ak jumaa yi dafa jural yoon wi lu bëree bari te ñoom ñu xamoon ñoom ñu xam ndax bu fekkee yoonu murit am na liberté wala mu am xurriya ci luñ bëggal seen bopp mënal ko seen bopp mën nañoo wax ne ci tabax giñ tabax jumaay Tuubaa ci lañ ko jële ci lañ ko jële ndax biñ defaree raay bi ci lañ ne ah ndeke ñun mën nañoo defarub raay kon koy defar jumaa ji duñu të luñ defaree jumaa ji ñu ne kon ndeke ñun luñ jéemati man ko luñ jéem man ko hmm. ba loolu moo indil yoon wi fii mu agsi ba léegi ba nga xam ne luñ jéem luñ bëggal seen bopp ñoo koy defal seen bopp te kenn dërëmu état mën na cee bañ a dem loola kon euh, tabax jumaay Tuubaa moo ko indi te loolu lépp su amee tamit euh, ndigalul Cheikh Amadou Fadel waaye taxawaayu Cheikh Moustapha mu ngi ci waaye jàppaleeg Serigne Fall ci jamono yi maam Thierno ak jamono yi Cheikh Moustapha da cee fés ci ay xalaat ak ci alalam ak ci dooleem rawatina nag bi mu doonee Cheikhul Khadim moom dafa mel ne. Eh, soo ko dee jàngat dafa mel na moom dafa dafa ñëwoon rek ngir jumaa ji tax koo jóg ndax bis bi mu feeñ maanaam su fekkee dafa feeñ ci bis bi julli wàcc mu defal sunu borom lu toll nii dafay mel ni kon moom ñëwoon ngir jëmmal julli ak taxawal sëriñ bi lii moo ko moo ko taxoon a jóg kon loolu mën na si na koo tënk ci ci ay mbiram di ñaan sunu borom mu taas ñu ci barkeem te yàggal fi Cheikh Abo nga xam ne moo ko fi wuutu Euh, di ñaam suñu borom it mu defal ñu tawféex di am mbégte bu baax ci liggéey bi nga xam ne commission culturelle bi mi ngi koy def xam na waxtu wi ñu tënk moo tax ñu gaawal wax waxtaan bi loolu waaye mën na gën a yaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Abdoul Ahad Bousso ci exposition bu am solo bi nga xam ne def nga ko moom itam. leer na nañ ñi am na solo lool te tegu na ci xam-xam ndax taarix lii lay nangu muy lépp loo xam ne wax nga ko mu ànd ak ay preuve ay adilla rawatina ci loo xam ne yàggagut dana dimbale bu baax a baax ndaw ñi nga xam ne ñoo toll ci gëstu ñu xamaat bu baax a baax patrimoine bu am solo bii nga xam ne bokk na ci injaasaat yi gën a mag ci yoonu murit di amuk jumaay Tuubaa ni nga ko waxee di li nga xam ne moo libéré yoon wi ci kàddu yu mujj rek nga wax ne tax na sax murit yi xam ne ndeke bu ñu booloo tënku ci ndigal topp suñu ay kilifa jëfe seeni ndigal lépp luñ bëgg a taxawal ci àddina mën nañ koo taxawal tàmbalee ko ci amub raay raay bii ndax jàppoon nañ ne lu mel nii mustam mun war a mënta mën a nekk rawatina ci yoon woo xam ne ku ne xam na tàmbaleem njëlbeen nga xawoon naa métti lool ci ak doy ak dellool ginnaaw waaye bi jumaa ji taxawee dafa mel ni dafa sikkiyulaat bu baax a baax a baax yoon wi du mën yoon wi waaye réew mi àddina bi yépp rawatina képp koo xam ne yaa ngi safoo lislaam Touba doonaat benn rëmz boo xam ne ci biir Afrique de l'Ouest jumaa ji doon màndarga boo xam ne buy firndeel lu bëree bëri la ci lislaamu waa Sénégal waaye ci njàmbaaru Cheikhul Khadim mu bokkoon ci ñett naal yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon moom sëriñ bi ginnaaw aj Makka ak taxawal daaree alxuraan waaye amal jumaa ji ndax jumaa ji ak amam fajug aajo yi taalibe yi ci la bokk da cee tënku woon loolu bu ñu delluwaatee ginnaaw ci ni nga xam ne sëñ Xalil wax na ko sëñ Abdul Ahad itam feddaliwaat ko ñu leen di sant bu baax a baax ngir bañ a guddal ñu ngi leen di jaajëfal xam naa dañuy daal di jox rek euh, sëriñ Modou Khayri ñan mu ñëwal ñu ci exposition bi ni nga xam ne noonu lañ ko nosee ngi santaat bu baax baax commission culturelle bi ci taxawaay yi ak yaatal gi nga xam ne luñ dañ mokk di ko jéem a yaatal njàngaleem Cheikh Mouhamadul Fadel di doon loo xamante ni lu am solo la waaye itam lu jamono di soxla la ndax Cheikh Cheikh Mouhamadul Fadel ci pas-pas bi nga xam ne am na ko ba taxawal jumaa ji jógee ci guerre mondiale ñaareelu guerre mondiale bi 39 45 mu doon lu métti lool mu jafe lool nga xam ne bu xawoon ñàkk a taxaw taxawaay bu am solo bi mu taxaw amaana jumaa ji bu dee taxaw itam dana yàgg lool ndax gis nañ fi ay jumaa yoo xam ne tollul ni jumaa ji te taxawaay ba wala liggéey ba yàgg na yàggaay goo xamante ni ëpp na waaye lépp rek di pas-pas boo xam ne am na ko ci sanc ay dëkk ti ci soññiwaat taalibe yi kenn bañ a def lenn dégg naa ci jamonoon daan na wax naan bu kenn tabax li fekk tabax bi yëggut bu kenn tabax loolu moom da cee joxe màndarga këram gi jumaa ji yegg na te këram gi mel na mu meloon waaye ngir taarub jumaa ji gën a mën a feeñ ci la door nag miire këram gi ak kër yu bari bari yi nga xam ne ñoo wër jumaa ji ndax loolu yitteem la woon ju kawe kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ne li ñu ci indi mbokk yi indil ñu ko daanaka wax nañu lépp li amoon solo loo xam ne war nañ koo xam ci taarixu jumaa ji kon sëñ xay Khayri Euh, bi ngay tàmbali yaa ngi jox kàddu gi suñ Modou Xëyri Modou Kaahira mm-hmm. Modou Kaahira moom suñ euh, maanaam borom Kaahira daal borom Kaahira gii suñ Xëyri am na turoow am na suñ Modou Xëri am na ñii Modou Kaahira la euh, di rafetal di rafetlu rek jotaay bu baax a baax xanaa kenn suñu cee dool dara dul rek yaakaar lu ci nit dolli sax far ko ñaawal xanaa ngoog daal afadatum wa afadtum ka aadatikum wallaahi barik fiikum wala xaramana min afdalikum euh, di ñaan suñu borom mu boole ñu dugal ñu ci fabrica traje rek euh, comme li nga xamee noonu la ko commission culturelle bi di amale wala boo ko euh, ñu yor màggal gi ñëpp rek at mu jot daa am activité yu bari yoo xam ne dañu koy amal bu bokk bu bokk na ci bi ci gën a fës peut moom la ñu bari gën a xam mooy waxtaan wi nga xam ne moom lañuy amal bu ñu ma bu màggal gi desee ñaari fan bu ñu nee ëllëg la Euh, te mooy waxtaan wi sët yi di amal daa mel ne moo ci gën a fës waaye boobu lenn la rek ci activité yi nga xam day am te bu ci ne doyoon sëkk activité bii tey li ko wundu dana mat a leeral ubbite la ngir exposition bi nga xam dañ koy amal exposition bi nag benn la ci yenn yi euh, ni ma ko waxee léegi commission bi di amal danay amal lu muy woowee wasaaye xiyaat ay film documentaire yoo xam ne da koy tourné di ci xamle Kazu Rajab soloom di ci fàttali suñu fàllu mooy kan lan mooy jaar-jaaram ak yu ci aju euh, thème yi sax mën naa jéggi loolu waaye loolu moo ci gën a fës am na lu ay rajo bi yaat rajo bi yaat dëgg dëgg li ko taxawun daanaka jokk mbokk la dañuy seet ñoo xam ne seqoon nañu ak suñu fàllu euh, ñuy dem seeni kër di fa amale ay waxtaan di fa fàttalante euh, bokk na tamit ay shawaahid yoo xam ne ren am na yoo xam ne ay kilifa yoo xam ne fekkante woon fekkante woon nañ fi ak suñu fàllu seqoon nañu ak moom it te mën naa am xam nañ ci ñoom loo xam ne dana jafe nga fekk ko ci téere wala nga fekk fépp ñoom it ñu laaj leen ñu wax ci moom lu ñu ci xam mu nekk ay seede waaye nag li nga xam ne tey mu laa bëggoon ñu gën ko bàyyi xel te muy tàmbali tey ba ëllëgi màggal le huit allah lay lay lay lay yem tolloog euh, ñaar fukki fan bëccëgu ñaar fan ak juróom-ñaar ci màggal gi bis boobu lay jeex mooy exposition bi dem exposition bi dafa mel ne euh, day mel ne day jàll noonu rek waaye solo si foo ko takk àpp na ko exposition bi dafay euh, dafa aju ci ñaari thème dafa aju jëmmi Sëñ Fallu Sëñ Fallu ci jëmmam la aju Euh, ren nag dañoo gën a insister ci Sëñ lu apport bi mu am ci jumaa ji lan la def ci jumaa ji dëgg-dëgg nan la ci taxawe woon comme ni ko Sëñ Abdou Lahad doon waxee ak euh, Sëñ Xalil di leen euh, jaajëfalaat bu baax jumaa ji fan la tàmbalee Sëñ Fallou bu ne maa ci jiitu maa ci mujj loolu dëgg-dëgg lan moo koy jëmmal loolu lan mooy tegtal ne moo ci jiitu lan moo ci mujj moo ci mujj moo gën a tax exposition bi insister ci Sëñ Fallou ak apport am ci jumaa ji lii ci solo exposition bi nag daa mat bàyyi xel ndax kiy gëstu saa yu day soxla ay masdar ay ay foo xam delluwaay yoo xam ne bu fa àggee du fa fekk lu ñu sikk sàkk ñu bàyyi xel ne mbind yi dana gàtt tableau yi néew na waaye bayit wu ci ne xam-xam bu fees dell la lu ñu gëstu la jëlee ko fañ ko war a jëlee ba càmbar ko ba jàpp ni nii jan na ñu daal di koy euh, gaaral fii nii loolu may benn partie bi benn partie bi nag dañuy xamle ci ñenn ci euh, njaboot suñu fàllu na ñi nga xam ne ñoo njëkk a feeñ ci kër gi ren ñu ñuy xamle Modou Bousso Dieng yaakaar naa ñëpp xam nañ ko <laughs> ñu bari xam nañ ko boobu waaye mënees na koo gën a xam fan la feeñe euh, fan la jànge lan la fi bàyyi comme jeexit lan mooy jëf yi gën mag yi mën a tudd ci jëfam euh, moom la jël ci ci ci waa këram ak it suñu Mouhamadou Amin Baara euh, suñu laaj Baara moom it tamit jël nañ ci ñenn ñi nga xam ci njaboot gi jigéen gi lañ tàmbale ci euh, si soxna mbenn soxna mbenn mu mag soxna mbenn fàllu euh, nga xam ne bokk na ci njëkk a feeñ ci kër gi bu ci njëkkute feeñ moom it bokk na ci ñi nga xam dañuy gaaral seeni jaar-jaar ci li ñu feeñ ba dañu fi bawoo ak it lan lañu fi baax ci jeexit soxna mbenn bokk na ci soxna mbenn baara tamit soxna mbenn baara euh, muy soxna Aïcha te ñu koy dàkkantale sëñ Baara Xurija moom sëñ Mor Jaara mu nekkoon këram Euh, moom it danañ fi gaaral ak dundam ak soxna Sawda gën koo xam ci soxna Sooda moom it bokk ci wàllu suñu fan euh, ak soxna Hafsa soxna Abi ñooñu daal juróom benn lañ juróom benn personnalité yoo xam ne ku ci ne ci kër sëñ Fallou la ku ci ne doomi sëñ Fallou la ñoom it dañu leen boole exposition benn ndax it xam nit it xam njabootam yaakaar naa lenn la ci ndax it ñoom jeexit lañ ci ci jëfam ci taxawaayam biiram taxawaay bitéem loolu daal mooy li nga xam ne exposition bi moom la làmboo làmboo ren muy tàmbali lii tàmbali moom lañu màndargaale waxtaan wii nii di soññi ñëpp ñi fi teew ak ñi nar a màggal si te peut-être nañ euh, ñiy topp waxtaan wi ci ñu xam ne exposition bi am na fi aw ritam fi woo xam ne danañ fi nekk ba keroog exposition bi jeex ñu exposition bi am na fi aw fi woo xam ne danañ fi nekk ba keroog exposition bi jeex ñu euh, buñ si dikkee dana gis na am ñu ko leeral ku bëgg tamit des na ko guidé def ko ci wolof def ko ci yaaram arab def nañ ko ci ci ay tubaab euh, information yi yëpp ngi dama ko la yoo xam ne yu ñu saytu la ba jàpp ne daal nii moom jar na ñu gaaral ko ngir mbooloo mi ñëpp màggal gi am ganeen wàll boo xam ne dañ ko gisaat ci màggal gi leen santaat leen gërëmaat alaaj euh, Abdoulaye jërëjëfati baarakallaahu sëriñ Modou Khachira di lay jaajëfal bu baax a baax ci leeral am solo yi nga xam ne leeral nga ko ci importance bi nga xam ne moom la exposition yi am daanaka bu weesoo ziyaara bi mbokk yi ziyaara Rawda Sharif Sharifa di Cheikh Abdoul Fadal waaye ñëw def say ziyaaraat yu bokk ziare xalifa bi exposé itam dafay am taxawaay yu am solo ci màggal si rawatina ndaw li nga xam ne dafa toll ci sàkku xam-xam waaye ci xam-xam boo xam ne bu wér lay doon ànd ak ay maraajan yoo xam ne yu kenn dul naatable lay doon loolu yaakaar naa moom lay gum rax ci itam doon li ca wane waale lenn ci njabootu Cheikh Mouhamadou Fadal mata wane ñëpp waaye bu juy cukkee ñenn mel na ni mën nañu représenté ni ca des ci njaboot boobu nga xam ne warees na nafaraat bu baax a baax seen ak dund ni ki ñu war a nafare dundu Cheikh Mouhamadou Fadal ci dundam nga xam ne yaakaar naa mbokk yi ne wuñu sax ak dundam ñi ngi ci jariñuwaat bu baax a baax ci lépp nag kon ñu ngi sant bu baax a baax sëriñ Modou Xaadira ci leeram yu am solo yooyu waaye di sant itam mbooleem kuréel yi taxawaay yi nga xam ne ñu ko ci taxaw ñu jëlee cant bi rek teg ko ci loxo sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Ahmadou Rafaay mel na ni santaale nañ ñëpp ci taxawaay yu am yi ak yi nga xam ne saa su nekk ñu koy def dañu daal di jox kàddu bi rek suñu sëriñ suñu sang Bachara Balla Mbacke Balla ñu koy siyaare bu baax a baax Mbacke ko ndokkeel ci weer bi ndokkeel itam ci weer ci bis bi nga xam ne moom la ñu dëgmal di yow Saabi wal Bachrin di Kazu Rajab di ndokkeel bu baax a baax di ñaanalaale bu baax itam suñu jaww ji nga xam ne mooy. góor ñi ci liggéey yoo xam ne itam ñu ngi koy siyaare waa Cheikh Fadal su la tey mu wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, bokk yi ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara di leen ndokkeel leen jotti nuyoo bu jóge ci sunu kilifa gi toog mooy Cheikh Ahmed Badawi xam naa fu ñuy waxe moom muuma yi bokkuñ ca kon yaakaar na ne comme ay wolof la ñuy wax te waxal ay wolof la ñu te ay du ñuy muuma kon ñu dul muuma ñoo waroon wax wax ji waaye kon ñu jéem a kàll rek ba ñëpp xam ko ngeen jégal ñu si jottali nuyoo boobu ma waxoon léegi mu jógee ci sëriñ bi hmm. sëriñ Ahmadou muy nuyoo bu sell boo xam ne waxee na ko dama ko waxe doonte lottu nañ ci wax bëgg wa ko bëggoon waxee ñu waxee ko ni waaye ñu jéggal ñu ci rek ci masati doomu adama hmm. euh, may tàmbali rek ci ñetti yoo xam ne ay seere la mën naa am sunu mbokk yi sama sama rakk yi ñoo organisé lii moo tax lu ci bëri loo xam ne faayoon nañu waaye jumaa ji jumaa ji ni ko sëriñ xel wax ak sëriñ Abdou Lahad waxe am nañ ci seede yoo xam ne ak yenn yoo xam ne jàpp naa ne bu yu weesoo dañ ci am tegtal ndax plan yi ngeen wax nii ñu koy wax ci jumaa ji ju njëkk ji ak ju mujj ji mi ngi woon sama kër maam 1984 bi mu noppaloo lañ ko génne ñëpp gis ko mu doon sor mu doon plan bu njëkk ba amatoon amatoon sorool bi mu Moustapha sax am na ci boo xam photo boo xam ne ngi taxaw nii di di def ba soroor bi ñëw ba ñu tabax soroor bi fi mu toll lépp ay photo woon yoo xam ne tubaab daal foto bàyyi coono faal defoon ko ci benn kaggu benn kaal goo xam ne du ami tànk mel ne taabal boo xam ne am taabal yi xam ne am kees ak ak dànk ci la ko defoon tëj ko yàlla defee quatre-vingt-quatre noppul lañ ko génnee bi ñu ko génnee tamit gis nañu ko dencoon nañu ko am na nag kilifa goo xam ne gii mi ngi ciy loxoom. ci liñ ma wax. gannaaw bi. xam naa buy weesoo bu ñu xamoon sax ñu jëm koo lijjanti ba ñu xam koo ko xam nañ xam naa ko sax. ñu mën caa dem. ndax la ca nekk ci ay archives ci jóge ci jumaa ji ci bañ ci photo ak leetar ak nangam lépp lañ dajale woon teg ko foofee. naa ne kon ci jumaa ji dina ci baax. bi ci topp mooy yoo xam ne dama ko jële ci sëriñ Modou muy li suñu xëy doon wax wala Serigne Abdou Lahad juñ na ko benn bi eh, sëñ Abdoulaye wax na ko nee na bi si war noppee toog nañ ñaari at doora julli jumaa ji naam ñaari at yi li ko sababoon mooy li wax ndox mi ndox mi waaw ak yoon wi ak leer gi eh, xam naa bu doon ab mbusoo bi ma ne def na ciy pexe dafa woo Senghor Senghor ñëw fi mu ne ko sant nañ la bu baax a baax a baax ci jëf ji nga jëfal bañ mën a tabax jumaa ji hmm. ndax Senghor ko jàppale hmm. ba mën a tàmbaliwaat jumaa ji hmm. mu sant ko ca sant nga ko sant ne ko nag sunu diine dañoo digal bu nuy julli ji dañuy laab te amuñu ndox alaaj baaraam mu nett loolu sëñ si ne ko may naa la ñaari forage mu ne ko ah mu ne ko waaw mu ne kon benn bi defal ma ko daarul mën naan benn bi bi ci des nga defal ma ko daarul moxti sabab ba aaj baara nettali na ma ko sëriñ Fallou dafa jóge fii dem daarul moxti di def nañ daan def moo Cheikh Moustapha bi ñu demee sëñ bi daalal leen dal ba yàgg mu ñëw tàggoo fekk dafa doon am lu mu doon jëli foofa bu doon léegi ñu ne alhamdulilah baramin ba muy dem mu boole ko sëñ Maxtaar Silla Silla ma ma mbokkum alhamdulilah baramin sëñ bii la xam ne waaw boole kook moom ngir mu bijjanti ko sëñ Maxtaar su masaan ñëw ñoom moom la leen sëñ maam Thierno di booleel nee na mu ànd sëñ Maxtaar di dox di dox di dox ba fii forage bi nekk tey mu jàpp ne sëñ bi da ko booleeg sëñ Maxtaar sëñ Matar jàpp ne sëñ bi da ko yeewi mu ñibbi réeru am na bi ñu demee ba tollox foofu ñuy wax forage bi sëñ bi ne ko ah, teemalaa yeewi nga yaa ngi bëgg yaa ngi bëgg a sorikat mun ko ah bàkk ñaanal ma ko baax ji boole nañoo mu ne ko ah, di jooy di jooy di yëkkat mu koy tàpp naa ko mu kéer xam ne lépp lu dëkk fii la am moo ko dee dafa dafa dafa faay rek ndax daana am keroog nag ba ko si Senghor mayee forage bi la ne ko rongoñ yi see yooyu laay dàkki defal ma ko foofee loolu moo sabab forage Darou Mousty bi génn Darou Mousty tuuti ñu def foofee foofee la si mataar doon euh, génn rongoñ yooyu ngir ñu mel la ko forage boobee loolu alañ baaraam nag li bi ci des 1999 Serigne Toumboulen Bousso Serigne Mohamed Moussa Falilou ak yi wax ak yéen ak sëñ Moustapha Bousso doomi sëñ Cumbule ñoo nekk ci salle bi sëñ moodu ne keroog ba xeer yu noppee day sëñ ne ko ah loolu di fekk naa ko mu ne ko nekkoo foon de la ko mu ne ko maa ngi foon ñu waxante sëñ Modou ne ko nettali ko soo jooyee ma wax la ndax man xam naa li mu demoon mu ne ko dañoo toog ba sàgg Thierno ñëw ne ko tubaab ba ne na àgg na fa nga àggoon li sëñ bi doon wax daa daa lay jox ay kii yu bëri bëri nee na mu ne ko bisimilah ñu jóg nee na sëñ Tuuba ne bi mu jógee maa ngi topp ci gannaaw sëñ ne ko man gisuma la mu ne ko maa ngi fa woon bi ne ko lu def mu ne ko bi ñu demee ba agsi ba agsi ci fi ñuy tabaxe nee na sëriñ bi dafa jël turéel bi def ci yëngal defaat ni ñu koy tabax def sotti ci mool bi ndax daa waxoon ne bu ngeen àggee ci barab sàngam na ngeen ko bàyyi noonu ma ñëw barab bañ ci àggee la ñëw ne ko agsi na neen noppi àgg dafa nee na nee na boole jaxase sotti joxe sotti bi mu sottee ba teg mool bi wàññeeku daal di jàkkaloo mbooloo mi ne leen maa njëkkoon waaye maay mujj ba faw suñ cu ma ne suñ bën suñ cu ma ne Bousso mooy nettali Moussa Bousso doomam mi ngi mu ngi fi Cheikh Abal ñoo ñoo nekk maag moom ak suñ Mourou ñoo dem nañ suñ Mourou ne noonu la ko waxee kon li ngeen di wax nii nii ñi xam ne ci euh, waxtaan wi mën naa am gëstu ngeen ko wér wér ba xam ne am ngeen ay message yoo xam ne yu wér la waaye maa fekke moom ka ko wax am na lu mu amal dalaay yoo xam mën na ko ban mën na cee sukkandiku ba alhamdulilah wala min ñu xam ne ñu xam am na sax boo fàtte boole gi mën booloon ci jumaa ji ñu nekk benn fay la ci loolu donte sëñ Abdoulaye wax na ne murid yi inspiré woon nañ ci jumaa ji ak raay bi ba ne mën nañoo def lu nekk waaye daa am lu mu des lu bàyyi mooy bennoo bi bennoo bi mooy ña fa nekkoon ñëpp koo ci xoolab taawam moroom doo ko tudde bàyyi coono la sëñ euh, sëñ moo doj sëñ Thierno mii bàyyi coono bi la ko tudde woon sëñ Thierno moo woo téléphone ne ma sa maam la ma sama bay tudde kon bennoo boobu bennoo boobu nga xam ne xoolante woon kii kii la kii lii la dañoo yëgoon ne Sëriñ Tuubaa lañ bokk te moo leen boole kon dañ ci laaxaay loolu ba li ñuy defar ci àdduna ñu dugal ci bennoo boobu yi pour ñu mën a suñu àndu nekk benn rek dara du àgg kon Sëriñ euh, Abdou Lahad euh, message bi nga sa bi nga joxe woon nañ ci booy loolu bu ñu xëyee nañ dajale rek defar te nekkuñu euh, nañ meloon kon ñu am lu mel ni ñu am tey kon sëñ Axma nee na mi ngi nuyu bokk yépp mi ngi wax ci kàddu sëñ Abone sant na am na yaakaar yaakaar ju wér ndax kat ñu wax ne nit bu nekkee ci dara ba ak njabootoo ñëw wóotu ko ca def ca loo xam nii moom tëli na ko yaakaar gën a rëy moo ngi ñaan ci seen barke maam taxawaay yi ngeen taxaw ñu ànd ko yàlla na àgg fa liggéey ba seen ma bëggoon ñu àggale ko foofee sant na bu baax sant ñuy wax kat yi nga xam ñoo wax ci taabal doon wax xadara yi ak mbokk yi nga xam ne yëpp teew nañu fi di ñaan màggal gi jëm nag moom doon màggalu Sëriñ Fall bi maanaam kalima ko ni ñu ko déggee ñu waxe ko noonu ñu déggee ko noonu mooy mu doon màggalu Sëriñ Fall daal ñu fekkee ko at yu bëree bëri lool te luñ ci jëf rek mu dëppoog la sëñ bi gën a gërëm loo maa ngi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne nag ñoo taxawoon ci comité bi li ko waxee rek ay njabootam lañ njaboot moom boo amee muy def loo xam ne li tële ko sant nga ko ñaanal rek lu doon kon sëriñ Fall lañu ko teg sa loxo nga teg ko ci loxoog njaboot yépp rek man seen mbokk seen mag maa ngi doon wax waxi sëñ bi rek di waxantu ngeen jéggal ma ci loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah maa moom bi wax moom te xam naa ni macha allah wax ji leer na naa ñu. waaw matale lay sax. sant bu baax a baax a baax ñoom ngeen yaakaar baax te ñëw. waaw yéen ñi nga xam ne am ngeen doom ci ngeen ko lislaam liggéey bi Cheikh Khadim liggéey ko seen way gëm tey ba suñu borom soxla lépp te ñu am ko yéen incha allah parce que saa su nekk rek dafa teg seen teg seen ginnaaw. waaw waaw loolu ay daal yu faw rek. wane du ma ne sax wane seen liggéey maam waaye wane liggéeyu Cheikh Abdoul Fadal ndax Cheikh Abdoul Fadal moom Cheikh Abdoul Fadal ñëpp la ni mu jaayee woon ak njureelam jëndee ko taalibe noonu itam la seen yi maam ko ñoom ñëpp rek jaay seen cët doon ay taalibe faaw di ko liggéey liggéey bi di soxla lépp seen rek la kon Mbacke ngeen ñaanalaat bu baax baax kuréel gi waaye ñaanal itam njaboot bi ñëpp rek incha allah.